naka ñuy waxtaanee li nga xam ni moom mooy Cheikh Amara xam ngeen ni toogoon nañ lu yàgg nag kenn gisatu ko woon fi nga xam ni moom mooy média yi ginnaaw feebar bu yàgg boo xam ne tëraloon na ko accident bu mu defoon ki li nga xam ni moom mooy Cheikh Amara kenn gisatu ko woon ñu daal di koy seen nag fa li nga xam ni moom mooy anniversaire doomam doom nag boo xam ne am na ko ak li nga xam ni moom mooy Karina Tavares Karina Tavares nag nekk fi jet setteuse ñu bëri nag doon nañ lam-laame seen diggante doon wax ni ñoom ñaar sax doon nañu sëy loolu nag daal dinay confirmé wu ndax nag gis nañ ko ci anniversaire doomam ji nga xam ni moom mooy Abraham te mu am ko ak li nga xam ni moom mooy Karina Tavares leneen loo xam ni daal dinay jaaxal nit ñi daal di attirer seen attention mooy proximité bi nga xam ni ñoom ñaar am nañ ko ki nga xam ni moom mooy Cheikh Amar Karina Tavares benn photo la ñu gis ñoom ñaar ñu jege woon too ci ah, bu baax ñu bëri nag di laajte ndax ñoom ñaar seen relation dafa daal di tàmbaliwaat loolu nag moom mooy question bu mag bi nga xam ni moom la nit ñi ah, di posé woo ginnaaw nag anniversaire boobu nga xam ni ah, mi ngi def buzz ci internet bi loolu la nit ñi di laajte ñu leen di wax nag comme toujours ngeen continuer di topp seen site d'information Limametti loolu lañ leen indi loon tey di leen jox dig daje beneen yoon. ak yeneeni xibaar